jërë ngeen jëf mbokk yi maa ngi taxaw papa suma xarit yaakaar naa ni muy père kenn ko Ibrahima Mbaye kenn ko laajte moom ci làmb moom waaye kenn ko lam laamee ci digganteem ak waa Fass digganteem ak école de papa maa ngi lay nuyu. gis maa ngi lay fay. sa rek. di la dalal ak jàmm. père yaakaar naa ni nga bokk ci nga axlu làmb dañ leen di bàyyi xel bu ñu waxee nga gis ni làmb nu muy doxee huitième saison bi débuté combat yi am saison bi combat yi mag yi di di déblu ñëpp di demandoo comment noo gisee kii bi noo gisee li nga xam ne saison bi ni muy waaw ah, sant yàlla rek julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di am mbégte ci réew mi rek di ñaan réew mi yàlla na fa jàmm sax laa nga loo xam ne lu am importance la parce que booy xool saison daaw bi combat am yëpp dañ jëm ay gàllankoor ba combat yi bi yàqu. moo tax daanaa ko wax may ne làmb bu nu yàlla dimbalee ba làmb ji ubbi dinañ am saison bu mucc ayib te defe naa sunu borom mi ngi ci suturaal boo xool combat yi am yëpp combat yi tegaloo yëpp yu daaw la woon sunu borom def mu am moo moo am ren boo koy xool ci combat yëpp rek amu ci benn amateur bu dagg sa biir te sa billet jarul mm. loolu moo leen na ren daal de yaakaar naa ne su dul élection yi du koor gi fii ba booba dégg islam bi yu mucc ay bu soob yàlla ak yonent bi mm-hmm. parce que yi yàq woon ak yi taxawaay yëpp combat yi neex la yak won yi taxawaay bi combat yi neex la yaakaar naa ni combat yi magi beuri jall mais combat yi magi nek sunu karam kanam yaakaar ni dem ba euh, dimanche bi ñu genn ci la nekkon ci la la guerre ciol nek dem ali Alioune la ak nga xamanteni moy Modou Anta ali Seye am ci ndam way ñu dëg ay combat yooyu Fass di bis digënté lak Rose ak ki nga xamanteni moy Fils de Balla ñu waccay bi ñu ko waccay parce que gisoon ñu Fils de Balla lak Rose ñoon ci combat digënté mo coins ñu bëri ne entraîné wul indiwul doole ñu gis combat bi man gis naa ko saalu gàddaay mhm. fekk naa ko fa muy liggéey mais ñu gis ni noo leen waajalee bis combat boobu lu toll ni Fils de Balla avant sax soir bi ba pare soir lu tax Fils de Balla waaw que boo laajoo lu mooy du Fils de Balla la ñuy préparé combat yi ñu am dafa bëri Serigne Ndiaye day day bëre Gris Bordeaux day bëre moom Lac Rose dafa am combat ak yeneen combat yoo xam ne ñu ngi koy waxtaane pour mu taxawaat ci écurie Fass loolu moo leen combat Fass écurie Fass combat bu ñu am rek combat choc la suñu borom moo nu ko cërale parce que ki nga xam ne moo fi nekkoon jiituñu yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko muy alaaji mbay géey loolu ci moom la déparé kon donc Fass mënu am benn combat boo xam ne du doon combat derby lagros nag li nga ma ci laaj mooy dafa jëkk ci combat ma Coens ñu bari di ko ŋaañ indi na doole indi na xam-xam mu daan waa ji mais coffre ba moo doyul pour mu daan Coens li ko daan lépp mooy loolu loolu yaakaar naa ne bi mu demee ba këram waxtaan nañ ci xam ne ne moom li ko daan mooy ñàkk koofur moo ko daan ci combat boobu. donc ñu ngi koy liggéey am na poids bu mu jàmmarloo ak Fils de Balla mu ngi koy liggéey mu ngi liggéey ci xool bi pour mu taxaw pour mën a jàmmarloo ak waa ji. combat la boo xam ne li ma ci mën a mooy lu ñëwagul la mais bu la ñëwee sumee ku ba taxaw bëre Fils de Balla dañu xam ne la Rose mi fu mu nekkoon ma nga du bëgg na bëgg lu ko neex wala lu ma ko jur parce que bi bi ñu koy jël ñu bari dañu bañoon antu diggante Abbas ak Moustapha Gueye jël combat bi ñoom ñu ci dégg. bi ma ko woowee nee na kon ndam li ndam mooy kenn écurie Fass moomuñu ko ñaar rek ñoo ko moom muy Abbas ak Moustapha Gueye munoon père li nga bëgg a lépp xam naa ko yàlla na yàlla yóbbu ca bis ba ak jàmm en tout cas ni ma ko gisee nii sama xel dal na mais dañoo gis ne wax écurie Fass dañuy wax bu ñuy wax njëkk écurie bu njëkk rek wax hmm. mais léegi gis nañu écurie nekk ci kaw ba ba li nga xamante ne mooy compétition bi ci commencé saison bi ba ak cëppaandaw la bu ñuy joxe li nga xamante ni mooy meilleure écurie ren sax Fass du ñëw lan mooy jafe-jafe yi jafe-jafe yi mooy booy joxee ñëpp ay combat lu cëpp mooy du ci mbër yu mag yi xale yu ndaw yi ñoo leen di ñoo leen di jox ñoo leen jox code bi ñu am parce que say boo yoree ay écrit xale yu ndaw yi di bëree rek combat yu ñu daan rek bu ñu def ci raam sa écrit mën na jël pay wala mu jël deux ci loolu la mais pas ci luur yi luur yi booy xool ñaar ñoo ci bëree wala ñett su passé jeex na am combat yi bëree bëri boo xool xool de écrit yi ñi ci bëree ñëpp ñeenti combat la ñeent ba juróom fa la ñu yem mais boo ci amee xale yi pépinière yoo xam ne sob nañu am nañu mbooloo yàlla mi ngi ay combat ñuy daan la plupart équipe boobu mooy jël pay loolu rek mooy loolu rek la dañ doon gis tamit Fass ñu bëri dinaa foo génne ma ni écrit Fass saa génne ñi naan ñu form Fass ma formé Fass mais révélation yoo xamante ne nii nii ay révélation yu bëree ñu ne fi Fass kii Fass a nekk ëllëg mën nañ xaar mu nekk li nga xam mooy héritier Fass léegi mel dafa xaw a sooxee Fass léegi gisul ñu ay ndaw ñoo xamante ne dañuy dem écrit Fass ñu jàngaat bëree noonu am nañ ci lu bëree bëree bëri nag euh, daf ci yoo xam ne bëreeguñu am na yoo xam ne ñu ngi bëree soo ko mel ni benteñi wala nga xool mel ni caatu montagne mm. wala nga xool ci Papa Ndoye ak ñeneen ak ñeneen parce que Fass soo koy xool dañuy indi antu diggante Baara Ndiaye général ak Lagrose foofu la gars yi mën a yem doo yéeg ci kaw parce que boo yéegee ci kaw di mën nga fekk Maodo fekk fa Forza fekk fa Serigne Ndiaye 2 wala nga fekk fa Gris Bordeaux wala nga fekk fa Lagrose yooyu day am mais dafa am ci digg-diggal boo xam ne ñu ngi ciy liggéey liggéey boo xam ne antu ñett ñoo ñu nekk ci biir wala ñeent nga xam ne actuellement seen i combat am na booy yu ñu yéegal ci kaw ñu fekk leen loolu ñu ciy liggéey liggéey bu mucc ayib dafa ne écurie Fass dañoo liggéey boo xam ne du jëm kaw dañ ci gis koo xam ne bu ñëwee tey day ñëw ñaari fan ñetti fan dootoo ko gisati fekk am na beneen méthode bu ñu koy liggéeyloo ci ginnaaw an wala benn huit mois rek bu ñëwee ñu xam ne mbër maa ngi nii secret boobu ñu dañ ciy liggéey hmm. waaw mais Ama Baldé na hmm. ñii am nañu fas ba ñi naan combat bi du am ñi naan du am ak du am état de nga xam ne mooy Gris Bordeaux est-ce que ça va moment yi waaw Gris actuellement nag loolu la ci wax ñun écurie hmm. à part vidéo yi for ci moom. Hmm. mi ngi liggéey. combat bi ñor na ko trop. parce que ñor bi mooy. Hmm. ci sama gis-gis. bu soyoon ku ne mën na ko daan ba mu sa Ama Baldé hmm. du nu soxor wala dara nag. day combat dër bi. moom lu mu jur. mais nag Gris jox na combat bi reste boo xam ne. walaay Azim du jóge ci Balla Gaye ci kàttanu yàlla Ama Baldé di ko daan. mais problème lu tax loolu la ma waral ngeen ni après vidéo yi ngeen gis tam muy écrit nekk fii. muy écrit boo xamante écrit bu mag la écrit boo doo war a ñëw boot xale yi war dañu koy gis si bi ngeen koy gis si bi mais ay vidéo kese est-ce que tamit non mi ngi France di liggéey mhm. def na fa deux mhm. bi ñu jógee gàmm ba léegi mi ngi France ñëwagul mhm. donc xam naa semaine bii dina ñëw maa ngi dégg ñu Ama Baldé mi ngi def day dem France for naa ko ci weewu nag ah. mais man damay ragal Ah, xam na am na loo xam ne nag kenn du ko wax. parce que mm. promoteur moo tëgg làmbam. waaw ñu ngi ñaan yàlla daal combat bi am. combat bi am waaw loolu daal laay ñaan mais la moo tax que combat bi foo parce que xam nga nit ñi Sénégal ñaare. Mm. du ñu sos. Mm. wala dañuy for ci wewu nag ne tis na affaire bi. ñii ngi naan Ama day dem entraîné ji ñii ne Ama dafa dem pour faju ji. man goo mën a Ama sax am na blessure. Mm-hmm. xañ na ay ndëgg sërëx la rek. Mm-hmm. mais nag Gris def na deux mm-hmm. a li manqué ci moom mm. dana ko mottali ci ak moom mm. Ama naa ne moom dina dem France mm. waaye ñu suñu plan semaine bi dina ñibbisi dina ñibbisi sooba yàlla yonent noonu lañ gisee Ama Baldé diggante ak Modou Lo te mu jugee jugee ci ne yéen la war a bëreel daakir waaw xam nga ñu bëri ñu ngi ñu ngi naan ñi Ama Ama mbër la dafa fekk ngembali ak mbër gi booy xool ñi mu bëreel stade Demba Diop ñëpp kenn ku ci nekk ni mu la daane bokkul ak ni mu daane sa morom dafa bëre koo xam ne jour boobu nag dafa war a ñàkk bis bi rek Modou Lo ñëw dawal ci maay ne mooy. Mm-hmm. takkuma dara indiwuma dara lu ma am yóbbu. Mm-hmm. lu gën a dute Ama loolu ci la bokk. Mm-hmm. mais fekkoon ne jàppante amoon na xëy na sax mën na am dara. waaw mais comme jàppante amu fa. pour Modou Lo egg ko fenn fi day yomb. parce que moom luur la. su xasee ba dévier ba ba jëm suuf rek. lu ko indiwaat day jafe. lu ko gën a daal la combat bi loolu ci la. loolu ci la bokk waaw papa.